amoon naa sama benn bàjjen mu nga dëkk waalo daf nu daan gane si su doon ñëw nag dafa fi di lettre ñun ñëpp pour wax ñu bés bi moo ñëw mais lettre yi moo ko indaale <laughs> tey gi le la ko bindoon bu di leen yónnee dama ñëw ma ni ko waaw te woon nga posté ka mu ne dama bañ mu tardé mais c'est tellement important ce qu'il a dit important xam nga lu koy dëggal ha? internet boo koy déggee ba ñoo xamuñu ko moo ñu xamu ko waaw mu ni ma waaw kay nu waxtaan ma ni gaam mu ni ma man dama nopp góor gi te dama bëgg ngeen may ma ko mu juree may ma ma ne kaa wax ko jigéen ji mu ni ma yii dafa wujjeeg man ma ni ko wax ko soxna madam mu ni eh kooku yaaram la dafa fiir ma ni ko wax kon naka ci pexe mu ni ma jox ko sama portele ma ni ko ay jë mu ne ma am nga seetu ma ne ko waaw mu ne jox ma ko jox ko seetu mu seetu seetu seetu ba mu yàgg ni ma sama kanam gi dafa diis ma ne ko ñu woyofal ko mu ne ma lu ko woyofal menikutu sendiri pun wakna aduna nyip deng koy wak aduna lip deng koy wak